mbok wa senegal Sénégal asalaamaaleykum seen bok docteur Mansour Diouf moy dekk pour wax len ni len situation bi am senegal actuellement ni situation bi graw na djegina na nit ñi hôpital amatul place nit ñaa ngi wër fu nek place ay ño xamanteni coronavirus bi molen len sonal trop trop trop yag nañ len ko wax ba ba léegi gis ngeen may alerter bi ñuy jubli ci tabaski gi wax nañ ba sonn yenn ñi tabaski jaru ko waxoon naa leen bu ñu génnee ci tabaski bi di ngeen gis lu ngeen musul a gis actuellement nii nag li xaw ci hôpitaux yi boobu ba léegi ñu ngi wax li fa xaw dañ leen a bëgg wax mu leer seen bopp dëkk bi place amatul moo xam hôpital la moo xam clinique privée nit ñi gis ngeen da ngay gis nit koo xam ne dafay nekk ci diggante dund ak dee ñu koy indi hôpital du amul place place amatul yéen a ngi dégg loolu il faut ngeen xam ko situation bi garaaw na garaaw koo xamante ni actuellement nii nii nii nii nii nii yéen mbokki Sénégal yéen laay waxal yéen a war a jël seeni responsabilité li ci des mooy mbokku journaliste yi yéen la ñuy waxal jamono bi am na foo xam ne bu fa jamono tollee ay wax nekkatul luy faj mbir mi il faut ngeen dem filmer li xew ci hôpitaux yi def ay reportage wan ko doomi aadama yi ñu teg ci seen bët parce que nit ñi actuellement toll nañ fa nga xamante ni ay waxi kese mënul ci ñoom dara boobu ba léegi gis ngeen may wax deful dara parce que lii lépp gisoon naa ko muy ñëw waxoon naa leen bu ñu jógee ci tabaski gi bu ngeen moytuwul di ngeen gis situation bu ngeen musul gis actuellement nii nag béy woy na mbuus bi ci des mooy autorité yi nañu jël seen responsabilité balaa muy trop tard ay moyens de renfort moyens de renfort yi mooy lan armée am li wax hôpital militaire de campagne nañ ko installer nu mu gëna a gaawee revenir en renfort parce que suñu mbokk docteur yi nek ci hôpitaux yi bu ngeen xamul li ñuy dund jamono bi parce que am malade mu ñëw mënta noyyi manquer oxygène etc. cetera foko tek am place boko tek sax amul ñi ngi wax sax man jotna ay message yu may wax ni sax am na nit ñoo xamante ñi ngi ci hôpitaux dañ leen di gis ñuy teud ci couloir yak ay yu kenn xamul parce que amuñu place loolu nag bu amee na ngeen fagaru lii ngeen di yi ngeen di am ci kër yi ñii naan damaa grippe ak amul ci jamono bii booy boo mu leer seen bopp ku képp ku fi wax waxu grippe xamal ni feebaru Covid moo la jàpp lii dama koy wax sama baat ca kaw képp ku fi am symptôme nga naan ay grippe benn grippe amu fi ndax sa bopp baaxul feebaru Covid moo moo fi am li leen ci musal yàgg naa ko wax dem leen ñaqu ji bu ñaq amee. ñaqu ba pare tamit na ngay jël takk sa masque di raxas say loxo di yor sa gel foo toll ba moytu dajaloo yi moytu xew yi yaa ngi dégg génn bu mënta ñàkk fooy dem solo sa masque yor sa gel di raxas say loxo loolu moo la ci muur moo la ci aar ñaqu plus li ñuy wax geste barrière ñaqu bi dafa mel ni nga sol gilet parbal balles gilet pare-balles mooy gilet yooyu nga xamante ne ni boo ko bu ko defee dalay dalay protéger ci balu fetal mais boo solee gilet parbal ba pare dem fa nga xamante ni nag fa la ñuy dóorante ay bali fetal bu bal perdu ñëwee dal sa bopp rey la yaa tooñ sa bopp da ngay sol sa gilet pare ba pare fagaru bañ a dem fañ koy dóore loolu mooy da ngay def sa vaccin ba pare dem di continuer sol sa masque di raxas say loxo yaa ngi dégg di bañ a dem ci dajaloo bi bàyyi xew yi bàyyi leen xew yi war a rasuli vraiment bu ngeen yaakaaree ni ñun li ñuy wax nii ni boobu ba léegi dañoo dañoo dañoo am waxukaay rek di wax yéen a ngi nax seen bopp ñun lii gisoon nañ ko muy ñëw alerté nañ ba sonn wax nañ ba sonn am na foo xam bu ñu fa tooy nag ay wax nekkatu ci ne journalistes yi dem filmer situation bi am sur le terrain loolu seen liggéey la faites des reportages ngeen wan ko nit ñi nit ñi teg ci seen bët mun a fagaru xam ne li ñu leen di wax nii bu ko defee ku nekk jéem a rawale sa bakkan parce que fa lañ toll nii ah jamono bi fa lañ toll nii ah, buñ leen ko waxee buñ leen ko waxul la situation la est débordée booy boo leer seen bopp nag wax naa leen kon voilà mi ngi noonu lu waay lu waay xam nag mi ngi noonu wax nañ leen li leen war a wax jóg leen balaa muy trop parce que actuellement ni li nga xam ne moo xew ci biir kër yi ak ci hôpitaux yi jéggi na dayoo baax na jërëjëf yàlla na yàlla musal waa Sénégal jërë ngeen jëf mais nag yàlla yàlla bay sa tool